fa jëriñu ko ñaan fan bu gudd wér gu waaw xar am na xar amul xar manqué na xaalis am na boo leen ci bëggee lu leer Omar Sow bi nga xam ne moom ci boppam éleveur la moom mooy fas yéene ñëw ànd ak yéen ñu dem seeti Omar Sow kaay ay ay ñëwal ay dikkal lay lay laa dikkal lay lëloo kaay ay dikkal yéen a <laughs> kontaan naa si seen réewande li ngeen neex Omar réew ñëw na tey ngeen dee tey ngeen dee tey ngeen tey ngeen dee ah. Omar réew ñëw na tey ngeen dee <laughs> jërëjëf jërëjëf dégg ngeen li mu wax tey ngeen dee Omar réew ñëw na tey ngeen dee loolu nag slogan la boo xamante ne nii moom mii Omar moo moom waaye mbokk yi di fàttali nii Omar mii ngi Chine éleveur la bu mag nekk ci biim réew Omar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay booy. Omar baa yaa ngi am jàmm Omar. lan euh, euh, nga baal ma euh, ci télévision nan ne. nga baal ma rek laa wax doo fay sa rajo bii. fayuma Amar yow kii man lay woy. waaw bu lee bu dee bu lee waaw waaw bu nu émission bi jeexee mu woy la. ah doo déglu tuuti rek. waaw doo ma dimbali rek ma mën a yegale émission acteur bi. Ah, kon da nga ko waroon wax ma bañ a indi sama rajo boo kay rajo kay wax nga pen eh noppi eh doo doo. Amar ah, lu def nii. dama koy saaga de. <laughs> jërëjëf mbokk yi mi ngi noonu. kay Amar mi nag kenn dootu ko présenté ci réew mi wax dëgg yàlla éleveur la bu mag Amar. waaw. Omar da juum de. lii du taabal de teggil sa tànk. laal la kanaa doo Omar bëgguma laa football. Omar teggil sa tànk. kanaa doo nit. nit laa yow doo nit yow. teggil sa tànk dama laa rus dama laa jox ci. damay bàyyi de. da ngay sa tànk yow tamit. baax na kon. loolu fi. waaw ah, Omar dama dimbali ngir yàlla tamit may ma ma yàggali. fii ngay jëf li mi ngi noonu Omar nun nga dundee tabaski bi. tabaski bi macha allah. olof yi ñoo am problème waaye kar kar pël jeeg na ñoom ci leel ñoom ci leel ñoom ci leel ñoom eh, ñoom Ahmed. ñoom Ahmed. ñoom Maamidou. ñoom Maamidou ñoom ñoom ñëpp jarle nañu. <laughs> kolal ñoom Bokar. ñoom Umaru. waaw ma suma tuurandoo Haruna. Haruna ñoom ñëpp Medina Garan Dakar parcelle ñëpp jaay nañu. ñëpp jaay nañu Malien yi jaay olof moo lambale. kam <laughs> nga olof day ñëw jël kar naan kar yar bii dafa dekk repas nekk na brioche lekk na fan la dëkk bi amal loolu. kar kar la rek moo takk pël jaay na kar dem na yoon am na kaalis takk jabar ma yëgal la damay mariage da ngay lan damay mariage da ngay mariage <laughs> waaw damay mariage jërëjëf yàlla sunu borom <laughs> ne lamb gi Eh, sama kel mooy teey sa lan kel sa xel bu dee teey nga naan petit kolaa ah, baax wala nga wuti seen njeñ eh, eh, oh, gis nga nag Omar xam naa ne nag wax ak yow dootul yomb dootuma toog di wax ak yow boo saako naa taxaw di wax ak yow waaw Omar lamb gi ci réew mi ma yaakaar ne xar-xar la rek ah. est-ce yaakaar nga ni gars bu nu bu nu bu nu boole woon wàññi prix bi yëpp est-ce que yaakaar ne est-ce que nit ñi dina gën a am yenn ci xarit man wax naa sax démb maa ngi dégg ñu wax ne dañu war a peese carte peese kar bu bu ñu ko defee fii man du ma jaay kar de ku bëgg peese kar da ngay peese yàpp dégg naa politicien bi wax ne nañu peese kar pourquoi ñu peese kar xanaa ñu peese karaw. peese lan ku peese sama kar sama kar boo ko peesee da ngay peese karaw bi man kenn du jënd sama kar ay peese de di kala lan dama bugg saaga. Luzi oh, bu fekkee yat am na foofu abal leen ma ko. ndax Omar mi da sa <laughs> dara. da ngay laal. damay foo ak yow rek xam nga yow daa nekk sama xarit. Eh, mbokk yi booy ren olof moo lambale. jërëjëf olof moo lambale. <laughs> olof moo jëf hmm. ah, ah. jërëjëf yàlla sunu borom. yaa ah, Omar. wax dëgg yàlla Grand Dakar Tilline Medina Gueule Tapée Fass lan fa gis ci doomi xar kenn xam nu mu toll. ama est say xar jeex na. billaay wallaay taalaay sama xar jeex na ma dama teel a jaay teel a ñibbi. waaw lépp man amatuma dara lu ma taxaw fii am naa kaalis damay takk damay mariage. waaw yow sa mbàkk bi kanaa sa silibu jabar la <laughs> baal ma de sa tubay jabar. dinaa jël suma tubay jabar ko teg. waaw lii gis lii lii lii lii nga xam ne ngamb la de ngamb la de. ngembi lan. ngamb wara du ngemb. ngamb dama kaamul rek. mbokk yi mi ngi noonu. wandal wandal. Amar waaye munoo fekke ba ma wan ko. teewut waaye léegi Omar jugal Omar jugal mbokk yi mi ngi noonu Omar la wax dëgg yàlla ràññee ngeen ko ci wax lu baax ci def lu baax ci wax loo xamante ni nii problème yëpp mbokk yi problème yëpp dañ ci li la la damay wagasu da ngay man pour man da ngay waxatu ah, ah, ah, Omar léegi lan ngay wax sa ñi nga xamante ni nii mbokk sa mbokk yi nga xam ñu dëkk jaara jolof ñi nga xam ne seen xar teel naa jeex lii nga eh, yow ba pare nag ñan nga invité ci mariage bi mariage bi waa kay <laughs> mariage bi mariage maa ngi woo ñëpp maa ngi woo képp ku tudd Omar. dalee ko ci Omar Pène. Omar Pène bu nekk ci Youssou Ndour. ci Youssou yoo yoo moom maa ko jaay kar. Omar Diallo bu doon góolu. Omar Diallo ku tudd rek Omar Sow. Omar Sow ñëpp maa ngi leen di woo. Omar Cheikh bu ma woo ñëwoo nag bu ma la jàppee. dinaa a nga di. Eh, looy saaga moo kew. lu xew saaga dëkk boo xam ne boo saagu doo siiw ah da dangaa bëgg siiw man kay siiw naa pël ah, kay bay la moo tax ñu laa nduru euh, euh, euh, sa ñaawee wuri bi doon kenn tooñ ma sama bàyyi ragal nga wàll ma ñaaw nga de yàlla baax na rusi waaw riiral yow toogal rek ah. Amar eh, Omar réew. maa réew. Omar réew. Eh, maa réew. mutu Islam Mina rofo nyanda isilami Mariam Omar